mbokk yi li nu mel ci àdduna doy na waar lu ëpp juróom-ñeenti junniy nit ñooy faatu ndax jàngoro bii di coronavirus. bërëbu liggéeyukaay yi tëj seeni bunt hôtel yi restaurant yi bërëbu fowukaay yi daara yu ndaw yi ak daara yu mag yi sax tëj seeni bunt réew yi si àddina sépp tëj seeni bunt nit ñi jaaxle lool ndax àdduna bu ubb bu la desee benn bunt benn caabe ngi jëfandikoo ko ngir mën a aar sa bopp. internet yi Pikini Production moo leen di ñaanal ngeen mucc ci feebar bi.